lii nag si wàllu noob la bu ñu waxee noob mooy li nga xam ne day neexal ay diggante day rattaxal diggante bi nga xam ne dafa ñagas walla bëgg nit bëgg nit ki bëgg la walla nit koo xam ne yéen a ngi bëggante sax wala yéen ngi nekk yenn saa yi mu am ay jafe-jafe yu am seen diggante si ñàkk déggoo ak si ñàkk jox bopp loolu nag day nekk farata wala sax nga bëgg bëgg a takk nit wala bëgg a mbir mi yéex wala am ay jafe yooyu yëpp ci wàllu diggante yi la te mun naa wax ne message bu ñu xëy di ko jot bu fekkee ne nekk na fukki message mun naa wax ne juróom-ñett yëpp si wàllu diggante lañ lay wax moo tax nag xëy na lu ñu am si ay secret yii bari na lu ñu siy doon ut di ko doon jàng bari na am na si yoo xam ne nag yombut nopp moom pour nga def nit ba jàpp ko yombut wax dëgg yàlla ndaxte lu ma si yor si ay secret bari na loolu waaye lii nag dafa nekk mbir moo xam ne suñu wàllu su mbokk séeréer yi la si leen ko jëlee loolu danaa si gën a ñëw. wooñ kenn nag pour mu ñëw pour ñu koy ñaanal à chaque fois comme li ma la wax rek lii nii ngeen gis nii sama compte TikTok la boo xamee si ni nii bu ngeen si duggee dama leen fi jox ay secret yu bari moo xam noob kaaraange ubbeekaay lépp bu ngeen ko bëggee mu ngeen fi dugg consulter ko ngeen gis vidéo yi mu fay joxe yëpp si côté yëpp si fànn yëpp nag danañ koy may gratuitement si wàllu secret bii nii compte YouTube bi la bu ngeen duggee si compte YouTube bi itam incha allah muy benn Maxtar Officiel am nañ fa 100000 abonnés daanaka wala lu ko ëpp. foofu tam dañ fa joxe ay secret moo xam si wàllu diggante la moo xam kaaraange ubbeekaay payre lépp dañ ko fay joxe kon képp koo xam ne ittoo nga ko rek mun nga defi dugg di ko consulter secret bii nag comme ni nga ko gisee ma leen koy won si écran bi nii dafa nekk secret boo xamante ne nii ñu jëlee ko si mag jëlee ko si mag te mën naa wax ne jot ko yombutoon te comme secret yi ma jotoo yor yëpp yëpp bi ma dalee liggéey si wàllu yii nii ba léegi. gisuguma secret bu gën a wér bii waaw si gaawaay si itam def mu jàpp léegi ndax suñu amee fitu ñëw di leen koy présenté di leen ko won mooy ko ne am na si yoon yu ñu ci jaar ba xam yàlla nag mooy mottal yi ñun suñ lépp si yàlla luñ ko wéer waaye nag xam-xam ak siru yàllaa koy joxe te bu ngeen gisee lii nii nekkul liggéey boo xam ne da ngay ñëw rek toog rek def ndax dama lañ koy won pour ngeen ko gisaale gis nga ñetti lekket lay doon lekket bu mag bi ak ñaari ndaw yi gis nga ni may defee mbir mi nii euh, si nii nga koy toppante xànq ngi gis googu nekk si biir xam ne ngi gis buy sax si armeel lay doon ak euh, pettaaw yooyu nga xam ne benn bi représenté góor beneen bi représenté jigéen am na tam nu ñuy représenté góor ak góor wala jigéen ak jigéen ndaxte boobaa day nekk ay frère wala ay sœur yoo xam ne déggantuñ wala ñaar ñoo xam ne moo xam ay xarit ngeen wala ngeen bokkuñ liggéey ngeen wanante ginnaaw wala yu demee yooyu moom si yeneen la yu ñu koy liggéey itam waaye bii bu ngeen gisee ma lañ koy won pour ngeen xam xam ne xam-xam duñ ñëw rek wax leen mais da leen nii wantam ndaxte bi nga xamee ne ut nañ ko ba am ko jarab bu ko ba gis ne lii lu wér la liggéeyal ko ay nit itam nga xam ne si kàttanu yàlla yàlla rek moo tax nag mbir mi sotti ndax ñun amuñ kàttan googu mbir mi yàlla suñu borom la buñ demee ba xam secret yi itam yàlla moo ko jaaree si ay nit ñu xam ko moo tax tam képp koo xam ne ñëw nga pour ñëw liggéeyal la ko wala ñëw defal la ko ngalla waaye nag nañ wax dëgg buñ la ko defal itam nga def ko sa jëkkër wala sa jabar am si li nga bëgg wala ki ngay bëgganteel wala ki nga bëgg a sëyal am si li nga bëgg dëgg dëgg dëgg jël kooku nag def ko mbaam wala jël kooku di ko toroxal ndaxte yow li nga def def nga ko ba moom li nga bëgg am si moom am nga ko si moom kon nag bu ko toroxal bu ko def na ko sudd noonu ndaxte ànd rek lañ si bëgg ak tam luy boole ndax jamono juñ toll nii surtout diggante yi yëngatu na euh, pour nga gis si ñoo xam ne dañuy ànd ànd bi continuer yombut. da ngay ànd ak nday euh, tey nit mu neex tey suba mu xëy na xadi euh, moo xam da ngeen di sëy moo xam sëyu leen moo xam diggante jëkkër ak jabar wala ñaar ñuy ñaar ñoo xam dañuy bëggante wala ñoo xamante ni dañuy nekk di séq liggéey wala lu mënti doon da ngay gis ne dangeen di jékki-jékki rek mbir yi ñëw euh, taqalikoo am xaajaloo am te doo xam lu ko waral cat dina ko waral def def dina ko am na ñoo xam dañuy jug di la dëddale ak ki ngay bëggante wala ki ngay àndal kon yooyu yëpp dafa am lii nag mu nekk si mbir moo xam si ni moom ëpp ko doole gisuma ko ndax façon xam-xam bu ne jàng nañ ko façon xam-xam bu ne itam gëstu nañ ko te liggéey nañ ko waaye bii moom bi biñ ko xamee nag moo tax ñu ñëw di ko séddoo ak yéen ndax ñun bët bu set dañuy gëstu xam-xam euh, di si dem fu ne kon képp koo xamee si ni nii bëgg nga ñu liggéeyal la ko incha allah rabi si kàttanu yàlla wallahi alazim maa leen ko wàttal incha allah taw tawfeex rek nga si gis ak ndam te sa xol dana te ñu sonaluñ kenn jox naa ne sànq sama compte TikTok ak sama compte YouTube ne leen ku bëgg ay secret yoo dafa sa bopp mu ngaa ne dafa ko sa bopp ñu ne képp kuñ dégganteel tam si wàllu ñaan duñ la si sonal si laaj loo munut danañ xool ni ñu si mën a jëflante yow suñu gën a seddee ndaxte li ñuy def jaamu yàlla lañ si jublu defuñ ko pour ut si bàkkaar ndaxte di eh, di defal nit dara ba pare di si am bàkkaar loolu yaakaar naa dara jar lu ñu si kaw suuf bakkaar gi mooy lan defalal la ba pare nga dem am si résultat dem di ko caaxaane wala di ko fooyee bëgguñ ko lii itam du pour foo farata moo ko tax a jug képp ku ñu si wax nag lu du dëgg nga ñëw wax ñu ne nangam laa bëgg ñu defal la ko ba pare nga wëlbati ko tam di si foote si caaxaan loolu sa diggante ak sa borom la te di nga koo rëccu kon nag defar moo ñu si tax a jug te képp ku ñu ko defaral dang ñu oo dang ñu sant dang ñu gërëm incha allah rabbi si kàttanu yàlla ndax man laa skuru naas laa skuru laa ku waaye lii moom képp kuñ ko liggéeyal si kàttanu yàlla suñu borom incha allahu rabbi da nga gis li ñu la wax sa xol dana sedd da nga bég te li ñu la wax dana am incha allahu rabbi ndax fi ñu ko teg la te xam ne lu ñuy def waaye lu ñu si gën a bëgg suñu xol sedd si mooy kuñ koy defal jubluwaay bi na nekk lu baax surtout sax ñu nekk si biir néegu sëy sax man moom si gën a intéressé nga xam ne parfois day yëngatu lool néegu sëy yi da nga gis yenn saa jigéen bu lay woo di jooy si wàllu euh, jëkkëram da nga gis jëkkër ju la woo jooy si wàllu euh, jabaram ñoo xam ne seen jabar dañ wane ginnaaw wala seen jëkkër yi ñàkk diggante bi ak ñàkk juboo bi ak ñàkk ànd yooyu yëpp dañoo bëgg mu dàkk si kàttanu yàlla nag suñu borom lépp yàlla suñu borom la waaye ginnaaw bi ñu utee xam-xam yi ba yor ko nag dañuy ñëw waxtaan si ak yéen li leen mën a jox li nga xam ne mën leen leen ko jox may leen ko comme ay secret dañ leen ko may mais li nga xam ne nag moom duñ ko mayee wala ki ñu ko jox waxuñ joxuñu euh, autorisation pour ñu koy euh, joxe wala nangam ah dañuy ñëw nañu ku ñu oo nag ñu dégg si den la ko may liggéeyal si kàttanu yàlla incha allah kon tey lii laa ñëw naa ko waxtaanee yéen ñu ngi yem fi ba subaa jàmm numéro baa ngi noonu 76 605 63 19.